naka laa ko dundee avec bokk de sérénité ndax même bu fekkoon na sax ñun suñu parti politique nuñ ko waajale woon dañ ñoo mayoon afiya ba ñu defee ko noonu maanaam jiital ku ñu bëggoon a jiital mu nekk président de la république ñun ñu àndoon ak moom day mel ni yenn wiñ ko yenn ku na ci ñun lañ ko yen kon noonu lañ ko xalaatee woon noonu lañ ko waajale woon suñu bopp ci pression bu mu na roon àndal tout le temps dañoo mës di wax ni du rek jël pouvoir bi sax ci la contrainte bi nekk waaye boo ko jëlee ba pare urgence yi fi nekk ak ni lay sénégalais di yàkkamtee nga taxaw ci li nga xamante te ne moo tax ñu fal la kon ni mu diisee ci man noonu la diisee ci képp koo xamante ne bokk na ci ñu porté woon projet bii pour ñu jël li nga xamante ne mooy confiance bu ñu sénégalais gi dénk kon pression boobu yàgg nañ ko dund donte nekkuñu woon candidat parce que dañu nekk ci groupe solidaire nekk ci parti politique jaar ci ay xat-xat yu bari waaye nag da ngay xam ne boo nekkee jeune président de la république ñu lay wax ne sax xëy na ñi nga xamante il son sont démocratiquement élus yaa ci gën a néew ay at. waaye nga nekk président askan woo xam ne ah dafa am ay exigence am ba tax saa yu démocratie mosee dem ba am ay jafe-jafe rek mhm. askan wi dafay taxaw défendre ko. de am exigence de plus en plus ci reddition de compte ci bonne gouvernance ci prise en charge ay aspiration yu gën a màgg mm-hmm. évidemment dina ànd ak pression mais c'est une pression positive pour un patriote mm-hmm. ou des patriotes yoo xam ne benn yéen rek lañu am mooy fexe ba coono yi askan wi nekkee ñu ànd ci saafara bu mu gën a woyof ci ñoom kon li ñu doon sàkku du toog cab chaise ñu dalay woowee ndiw président de la république wala nga am ndombal tànk non dañu doon sàkku ay leng yoo xamante ne bu ñu leen teyee ñu mën a defar li nga xamante ne jàppoon nañu ne mu ngi yàqu te bi ñu toogee tamit gis nañ ne fu ñu natoon yàqu-yàqu gi rek romb na ko kon opportunité boobu ñu am pour servir dañ koy sante yàlla ba pare def ko honneur bu mag bi ñu peuple sénégalais bi jox ñu war ko ko delloo ci liggéeyal ko guddeeg bëccëg suba ak ngoon ba bu ñu fay dem mu ñu jëf ay jéego yu bëri ci ni ñuy saafara jafe-jafe yi ba keneen bu ñëwee tamit am fu mu tàmbalee dem ndax certainement ni ñu remplacer nit noonu la ñuy di remplacer te bëgg nañ tamit fu ñuy jaar ci ay multi multi jafe-jafe ba toog kii ñëw tamit buy toog mu sedd. parce que askan wi wane na ñaar wane na ka mën na taxaw démocratie défendre valeur démocratique ak liberté. waaye wane na tamit bu fekkee ne homme politique yi nekk nañu à auteur askan bi mën na nekk à la hauteur te yàgg na nekk à la hauteur maanaam dem voté ji ci jàmm delloowaat seen kër yi bët set ñu dem liggéey kon ona a un grand peuple may am mbegte gu rey di ko ndamoo nag di sant yàlla gannaaw bi mu defee bi ma nekkee président de la république ma an askan bu mel ne askanu Sénégal di askan bu bëgg jàmm waaye askan boo xamante ne tamit jaloor gi nekk def nañ ko fi te fas ne taxawu tànk yooyu Mhm. pour de génération en génération ñu gën di am taxawaay gu ñu leen di respecté te yaakaar na ne tey mhm. fu Sénégalais dem am na mbegte goog ak fierté boobu ci nu ñuy bakkee ci biir Afrique ak ci biir ci fi génn Afrique. ñi ciy sant bu baax a baax monsieur le président jërëjëf euh, Ndeye Mariam nag am na question bu ko soxloon jëm ci état des lieux ak réew mi fi nga ko fekk ak na nga ko fekkee. Mhm. jërëjëf Fatou son excellence may feddaliwaat sama nuyoo. ci sama tour ak turu groupe Sud Communication bi nga xam ne ñoo ma yebal tey jii dañ fi dajaloo ngir waxtaanee wala boog ñu def xayma xayma sax teel na si koo xam ne dañ la tàbb ci diirub juróomi at wante baax nañu taxaw seetlu xool ba xam bi nga fi nekkee ba léegi fan nga jëlee réew mi ak fan nga ko fas ne yóbbu laajte bi li ko wundu li ñuy tuddee état des lieux maanaam bi ngay soog di si naka la keesu état bi meloon ndax permettre na leen lépp xam ne dafa nekkoon ci li ngeen booba mëbatoon ci réew mi ngeen mun kaa dérouler wala boog dafa jafewoon woon jafe na ndaxte gis nañu ne ci diiru ñaari weer def ngeen lu ñuy tuddee levée de fonds ba am ay eurobond muy koppar bu ñëw dollee si ci dette bi nga xam ne bor bi nga xam ne réewum Sénégal def ko amale ndax loolu lu mu wund moom mooy ne fekku leen fi dara wala boog état des lieux. waaw ah, d'abord. Euh, dama bëgg a préciser rek maanaam leeral ni lii ñuy def nii tey du pour def bilan ndax bu fekkee ne mandat cinq ans la te at wu nekk nu mu tuuti tuuti trois cent soixante cinq jours la kon xanaa mën nañ jàpp ne man liñ ma appal mille huit cent vingt cinq jours la mille huit cent vingt cinq jours nag doo ci def cent jours nga ne maa ngi def bilan loolu c'est mais exercice la boo xam ne dafa am lu ko wundu te jaar na tamit leeral balaa may ñëw ci laaj bi nga laaj bi may dem France yàggul dafa am ay journaliste yu nekk bitim réew yu bëri yu demande defoon ay demande d'interview ma ne duma dem sama première sortie ma di ko jox presse étrangère kon balaa may wax ak waa bitim réew bu dee askan wi laay waxal ma jaarale ko ci presse Sénégal ba pare mu wóor ma ne tamit feeg ak diir dinaa delluwaat te mën na am ñu defaat même sollicitation yi te mënoo dëkk dina déedéet déedéet ma ne kon jot na gannaaw bi ma fi tooree trois mois parce que man ñetti weer sax laa jàpp na laa def man nekkuma ci bilan cent jours deux cent jours trois cent jours maa ngi ci def naa ñetti weer diggante bi jot nañoo xool am lu ñu gis am lu ñu nekk di saytuwaat am na jot app bi jot na pour ñu mën a toog ak presse sénégalais à travers ñoom ñu wax sénégalais yi effectivement fii lañ jëlee réew mi jéego yi jot nañ ko def waaye loo gis rek lii moo ko waral pour sénégalais yi gën a mën a comprendre suñu démarche gën ñoo mën a gunge. bi ma ñëwee biñ ma falee déjà ma am avant may prêter serment laa commencé xool fan laay jëlee réew mi. première chose bi ma def boobu maa ngi hôtel Azalay dafa am ñi ñoo xamante ne ay sénégalais lañ ma yàgg di leen suivre woolu leen ci seen xalaat laaj leen naka la ñu gisee situation bi ñu wax ma seen xalaat ma commencé saytu ba xam ndax réew mi may jël lii ay stock de sécurité ci wàllu lekk lii approvisionnement ci wàllu carburant pour courant ak leneen ak leneen loo xamante ne mën na jàmp fan lañ ci toll bi ma commencé def exercice boobu am na li ma gis lu ma jaaxaloon loo xamante ne buñ ci bàyyi woon xel xëy na noon nañ avancer tuuti rek ñu ne coupure commencé na parce que SAR amatul approvisionnement parce que fekk nañ fi loo xam ne ci wàllu wax dëgg yàlla doyoon na waar waaye xel xel boobu ñu am ci njëlbeen xool ci secteur sensible yi fan lañ ci toll wax woo direct DG SAR bi mu ñëw ñu waxtaan ak moom mu am ñu ñu wax woo DG Sénélec woo directeur du commerce intérieur woo ñeneen ak ñeneen ci biir administration bi ancien ministre du budget woo ñeneen togg ak waa FMI woo ñëpp ci lañ xam ne situation bi ñu fekk nii xaw na doy waar trop trop trop trop pour dire le moins waaye tax na tamit ñu gaawantu jël suñu matuwaay ba bato bi nga xamante ne dafa woon na fi weer mënul décharger parce que fayuñu ko woon ci saar ñu defi pexe ba batu boobu ñu fay ko ba beneen ñëw ci gannaaw ñu fay ko pour ñu mën a assurer approvisionnement wu SAR ak hydrocarbure mu wóor ñu ne tamit duñ toog weer rek courant coupé. ñu fekk tamit ay yeneen mbir yu doon nit ñu doon gaawantu di def parce que xam nañ ñu ngi dem ma jël ci misaal rek xëy na dinañ ci egg ndox nit mën na bàyyi lu ne ba mu des ndox ñu ñëw le 29 mars. ma fekk sama prédécesseur ki ma fi bàyyi ki ma fi wuutu ñi mu àndal signé arrêté pour yokk ndox mi le 29 mars kon dama doon toog rek facture yi facture yi naaw ñu ne ñii la fekk ne ñoom ñoo ko signé ma gisaat ay contrat yoo xam ne surtout ci biir liggéeyu hôpitaux yi dafa am contrat yu ñu doon baral boobu defaguma sax prestation de serment ci laa woo le ministre de la santé de l'époque nee ko contrat tel tel tel buñ ko signé contrat boobu ñu taxawee ko te li ma ci gisoon ci ay surfacturation bu ñu leen waxee ngeen ja yaakaar ne sax lool mënta nekk biir Sénégal ba tey dañoo bloqué lépp luy contrat ci wàllum santé yi nga xamante ne commencé wuñu woon di ko exécuter parce que le fi ñuy egg ci surfacturation c'est inacceptable bi ma ñëwee seet si sama Euh, ki ma fi wutu ñu nekk di visite bi ñu toogee ci jeudi boobu ma ne ko gis naa ne ñu ngi def benn convention boo xam ne convention la ak Dakar na fekk ne si signé woon nañu vingt cinq ans avant mais convention bi arrive expiration ñu gaawantu war ko joxewaat vingt ans plus tard pour les vingt vingt prochaines années ma gis ne nu ko tegee les intérêts au Sénégal yi ça n'a pas été préservé mu ne leen bàyyi leen ko kase leen loolu defaat leen un nouvel appel d'offre pour mu wóor ñu ne que les intérêts du Sénégal sont pris en compte te bés bu ñu ko defee ba pare ngeen gëm-gëmale ko convention bu ñu arrêté ak bu ñu am di ngeen xam ne intérêt Sénégal préservé nañu ko ñun par rapport déjà réalité finance publique Sénégal dañ ci njàgg am doute ak certitude ne que am na lu ñu waroon càmbar ci biir dès 2018 suñu parti dafa bindoon ministre des finances bind FMI bind banque mondiale nee leen ni ñu gisee ñu saytoo finance publique bu Sénégal suñu xel dalu ci te bu ñu ñëwee ba toog effectivement fekk nañ situation boo xam ne xëy na mënoon nañ ko gën a saytu mu gën a sell gën a set ci réew mi donc évidemment mënoon na am jafe-jafe ci lu gaaw surtout que pendant ñu doon def loolu am ay jafe-jafe ñu ngi doon signé ay ay yeneen ay yeneen décret pour que ancien ministre yi ñu kon ñu am li ñu leen di fay signé ay yeneen décret pour ce qui de d' autres travailleurs d' autres secteurs di jël engagement yoo xam ne état mosu koo nangoo jël mu jékki-jékki yéwén ci mu doon loo xam ne dañ ko ñëw ñëw rek fekk ko suñu mu këpp suñu kaw te te du ñoon ñoo ko jël surtout que ñun ñooy ñoo naar doxal am responsabilité cinq prochaines années loolu ànd ak environnement boo xam ne nag boo seetloo déjà sur le plan conjoncture internationale nit ñaa ngi subir les effets de la crise Covid-19 ba tey di subir effet wu guerre Ukraine ñu ne deet waaye mu am une guerre au Moyen-Orient boo xamante ne xamuñu fan lañuy fan lay mujj kon évidemment conjoncture internationale c'est une conjoncture très difficile dëkk bi tamit nekkul na de lépp daf fi amoon jàmm rek ñëpp di liggéey ni ñu war a liggéey ku ne xam na de mille vingt et ba deux mille vingt quatre bi bi bi may Sénégal yi di jox lenge yi mais coow ak jafe-jafe amoon na Sénégal à telle enseigne que liggéey gi xawoon na lompoñ kon li nga xamante ne ci liggéey googu lay jële jóge nguur gi di ci am koom di ci mën a jële xaalis di ci liggéey évidemment liggéey boobu xawoon na sooxe kon surtout les plans les indicateurs étaient presque au rouge wala boog à l'orange loolu la ñu jëlee réew mi mais alhamdulilah taxawaayu askanu Sénégal ak même leader politique yi nga xamante ne dès vingt deux heures ba minuit presque ñoom ñëpp félicité félicité nañ ma ni nit ñi ragalee ragalee bitim réew xam na ne que ce peuple là mérite d'être soutenu kon am nañu crédibilité boo xam ne malgré conjoncture bu metti malgré malgré situation yu bëri continué nañu dañu def confiance ba Sénégal mën a def loolu ñu am tamit ay ministres yoo xamante ne xam nañu seen liggéey notamment ci wàllu finance ak wàllu coopération ak ñi nga xamante ne jël nañu leen ci domaine boo xam ne mën nañoo wone yoon wi. waxal sa bopp da nga fay fekk benn situation bi nga xam ni doy na waar suñ la suñ la déggee et pourtant dañoo toog euh, ñaari weer lu matul ñaari weer lépp lu nekkoon borse wala agriculture daanaka ba mu des benn bu ñu war a auditer nga daal di koy fay ñu ni déetawaay nga ni da ngay wàññi dund gi le ministre des finances nee na lu tol si juróom fukk ak ñeenti milliards lañ ci dugal. ñuy xaar yeneen pàcc yoo xam ne dañ ko war a wàññi si mel ni ko courant alors sénégalais bi tey lan la bëgg a xam mooy naka ngeen def ba mun a supporter